li waral woote bii moo di j'étais dans un réseau depuis 2014 et je peux dire ici que réseau boobu su amee ginnaaw yàlla ak sama jëmm ji la man maa ko mettre sur pied réseau boobu bi ñuy doon ñaari nit ma daa dugg ci kër yi nuitamment di wut ay ay ay ay adhérents ba ñu am 86 kër cellules yoo xam ne man maa ko monté ji ci télé laay mais pour pour dire vrai ma fa sama bopp te ñi nga xam ne maa leen démarché ji woon indi leen aussi gisuñu seen bopp ci mbir bi yàlla di dox ñuy dox di dox di dox di dox ba ma bëgg demal sama bopp loolu jaral na leen ñu yóbbu ma police vendredi passé heure bi nit ñi dem juma man ñu ngi ma yóbbu premier arrondissement uniquement parce que man je ne dois pas de la politique ou bien les femmes qui sont là derrière ay propriété am lañu maanaam moo leen moom comme ni mu moomee xar ay xaram ni mu moomee ay bëyam nit ñi samay nit lañu maa leen moom lu kenn mësta dégg loolu moo tax ñu yóbbu ma police parce que j'ai convoqué une réunion j'ai convoqué une réunion avec ces braves daam waxleen leen ni ñëw leen ñu ànd dem wuti ñu nangul ma ko tamit jox ma loxo ne ma foo ñu joxoon ñu xool ko loolu moo waraloon sama dem police. waaw waaw loolu man am naa ci droit am naa ci droit parce que en deux ans il a eu avoir quatre leaders. en deux ans il a eu à quatre leaders bi mu ànd ak premier leader am ànduñu deuxième leader bi ñoo ànd troisième leader bi ñoo ànd quatrième leader mu tànn ko ànduñu bëgguma ànd ak moom foofu man j'ai des convictions politiques donc su ma neexee ma ne duma ànd ak moom ci loolu politiquement parce que gisuma foofu sam mbopp gëmuma leen li ma gëm mooy toog ci kuje gi te rawatina fa mu jëm. la borom parti ba wax dafa leer soxlawuñu kenn kenn ku ne fa nga toog toog fa opposé ba ba ngay nguuru ñun ñu ngi opposé wu suñu nguuru toog leen ñun ngeen opposé wu am leen jomi loolu donc man j'ai mes propres raisons pour ne demu ma ci parti au pouvoir et je ne suis pas prêt pour travailler avec sa parti au pouvoir ji nga sama jigéen ñi ci ginnaaw ku leen di jariñ rek laay àndal loolu rek laay àndal maa keneen. adduma keneen ci lenn kuy jëriñ sama jigéen ñi rek lay àndal li ñu bëgg laa bëgg li ñu bëggul bëgguma ko heure bu ñu demee ne ma nag fii nga ñu jëmale neexuñu ñu toogaat waxtaan xam fan lañ jëm mais tant que ñu ngi may jox bopp dama jox loxo ne ma loo décidé baax na ci kileen leen di jëriñ rek laa jëm. ci liggéey boobu dama man meeting laa préparé woon pour def ko parce que nag ragaluma li may def sama brave dame dañu ma nañ def meeting kenn ku ne mobiliser mouvement ni mu toll indil ma ko biir Randoulène Nord. ma yëngal Randoulène ba mu yëngu parce que la bataille de Randoulène aura lieu Randoulène du feefu kenn du titre foncier baayu kenn du titre foncier yaayu kenn Randoulène waa Randoulène a ko moom Thiès Ouest ñoo ko moom te ñoom dañoo pare pour ànd ak man pour liggéey donc ragaluma li may def bu dul woon ay conseils yu ma wax ni defal un point de presse meeting laay def pour wane la euh, la force qui est là avec moi et loolu ça ne saurait on va le faire euh, ci biir loolu. mu am koo xam ne nii dama koy beral dama koy beral beral gërëm à la personne de Gilbert Samb euh, moom sama jarbaat la yaayam sama grande sœur yaayam sama grande sœur la sama euh, sama jarbaat la biñ ma yóbboo police la première personne que j'ai appelée c'est da dafa julli ji woon Tiwaawan juma dafa wàññeeku bàyyi lépp lu mu doon def ñëw taxaw ni mu ci war a taxawee képp ku mu xam woo na la pour loolu ndax jour férié lañ ma convoqué fu jour férié ci lan damaa war a dem damaa damaa ber sama yoonu bopp pour dem politique mu ñëw xar ci tànk tubayam ma koy sant di ko gërëm te pourtant moom dafa yore mouvement mouvement ànd leeral ànd ànd fàttali Gilbert dafa yore mouvement mouvement ànd fàttali yàlla def man ma am ay groupement yoo xam ne je peux créer un mouvement mais duma ko def ngor ngor a koy fay ñi nga mouvement boobu mu yore ànd fàttali googu man ak sama groupement yi on va se donner la main la main dans la mai ñu ànd liggéey maanaam ku ma soxla gisoo ma gis Gilbert gis nga ba ku soxla ji Gilbert jisoo ko soo ma jisee jis nga ba parce que du ñu réeroo ci mbir bi nañ toog waxtaan ci ba nga xam ne li gën suñu jigéen ñi parce que dama ko fekk nag aussi mu doon nit koo xam ne day jël un temps soppe bi mu yor di financer ay femmes te leen koy may. di financer ay femmes am te da leen koy may joxu ci kenn financement di xaar nga fay ko da lay financer ba pare accompagner la ba am na ci ñoo xam ne nii là présentement ni am na fu ñu toll ci seen financement yi yàlla ko yàlla gën a dolli doole. dama leen di xamal ñaar on est là on est ouvert pour toutes les discussions amuñu fenn fu ñu jëm ndax topp ñu ci ginnaaw kenn on a des ambitions pour les élections locales yi ñëw nii pour les jeux électoraux on a des ñi fi nekk maire gënuñu ñu ñi fi doon ay adjoint maire gënuñu ñu te sunu daam yi war na leen a mën a dugal ci maire yi ñuy jël décision comme tout le monde topp ñu kenn ànduñoo kenn dañu am ay ambition politique te yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu yegg ci loolu yàlla nañu yàlla dimbali gu géeju ba ñu yegg ci loolu ndax li ñu bëggal sunu daam yi ñu mën ko am. lii du mouvement lii du groupement yi de groupement bu ne dafa indi benn nit léegi comptez comptez les dames qui sont là ça fait combien daam bu ne da nga ñëw représenté benn groupement mobilisé wu ñu ay groupement de daam bu benn groupement la représenté wane leen seen bopp yéen ñii daam bu benn groupement la représenté daam bu benn groupement la représenté et je on va faire très mal ça je vous dis on fera très mal cette année fii kenn dootu fi am jàmm defe ne fii yaa ko ku fi waay lu fi waay bëgg di nga jaar ci ñun pour am ko parce que ji nga randu leen moo war a doon sa cheval de bataille bi randu leen dañoo gisul seen bopp ci leader yi fi nekk nii à part mais Gilbert est-ce que xamee ne mooy fay mooy fay mooy fay euh, gardien bi nekk école Malick Kéré douche moo koy defar la fay dem lépp moo ko fay def te il n'a qu'un salaire salaire la de salaire la am tout juste te moom mooy fay gardien école Malick Kéré mooy joxe la fay dem di leen taxaw bu baax a baax a baax a baax. alhamdulilah jërëjëf donc c' est pour te di que ne randu leen daf cee war a gagné randu leen dafa lu bari lu mu ciy gagné suñu koñ kenn yëgul sa bopp ci leader yi fi nekk la présentement bu du Lisbeth kenn yëgul sa bopp dañ leen ay financement mu ndax saay ñu dem lu wutee seen xaalis seen tur xaalis xaalis ba duñ ko gis booleeg ñàkk teggin ak reewande gu mat sëkk nag booleeg reewande ak ñàkk teggin gu mat sëkk sëkk sëkk sëkk loolu moo fi dakk waaw loolu suñ jógee ci lii ñuy def nii da ko moom accord parce que ñun amuñu lu dul randu leen dinañ ko toog waxtaane ko insha allahu rabbi xool li ci gën rek ñu def ko xool li ci gën rek ñu def ko parce que nag bay sa wewu tànk mais incha allah suñ jógee fii ñu toog nii fii ñu toog nii man ak la responsable Gilbert Samb dinañ toog waxtaane ko xool li gën te suñu jaay suñu suñu jigéen yi li ñuy wax dafa leer de elles n'ont pas de choix ñoom nañ leen wax ni def leen lii ñu def ko loolu rek la ñuy déglu def leen lii ñu def ñoom gémmuñu wut fu ñu dem ak fu ñu dem ngaari Gilbert wax leen ñu fan la ñuy dem ñu dem fa wax la ñu kan la ñuy votel ñu votel ko parce que duñ leen yóbbu ci ci ci mboy bi incha allahu rabbi doom ran leen ñoo jóg pour le bien de rendu leen noor ñu tàllal leen loxo di tàllal loxo suñu yaay yi fi nekk suñu papa yi fi nekk suñu nijaay yi fi nekk suñu mag yi fi nekk suñu rakk yi fi nekk suñu jabar yi fi nekk suñu sœur yi fi nekk sunu doom yi fi nekk tàllal leen loxo pour randu leen noor jëm sa kanam na ñëw jàppale ñu ci liggéey bi te xam nu randu leen moo jóg pour defar randu leen. ay opposants lañu képp koo xamante ni mën nga wooteel ku dul usmaan Sonko dañ lay wax nga dem wooteel ku dul usmaan Sonko parce que ñu fexee jël majorité bi assemblée bi jox ko ku jëkki pour que dëkk bi mën a am benn dal boo xamante ni dina am avancement parce que nit soo leen dénkee réew te mënuñu si. tëral nañ si boobu ba léegi def ñu benn proposition boo xamante ni projet la buy jëmale askan yu kanam mais biñ leen joxee dëkk bi ba léegi dañuy jiiñaate di tamaate dëmm te la ñuy jiiñaate mos ñoo indi preuve ay la yéen suñ leen suñuy dénkaane assemblée bi nañ ko dénkaane ñoo xamante ni ay borom bopp lañu ay borom xam-xam lañu te dinañu jox projet de boo xamante ni bépp Sénégalais dina gis seen bopp liñ doon li ñuy yóbbante nag cher journaliste pour ngeen jox ko premier ministre Ousmane Sonko mooy ñun dañuy xaar declaration en français à que mu ne dinañ criminaliser góor jigéen parce que loolu askan wi muy jullit yi muy chrétiens yi comme dañoo nekk pays lay ñun ñëpp ñoo ko bëgg. kon ñu xaar si moom déclaration boobu di xaar aussi si kuje gi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk te bientôt ñun mouvement fàttali du ranu leen kese mais yi ñi nekk si département Thiès bi yëpp dinañ waxtaan à ce xool ñi nekk si opposition bi. kan moo si porte projet de loi bi nga xamante ni moom mooy euh, criminaliser góor jigéen ñi mais aussi kan moo si proposer projet de loi boo xamante ni wàllum transhumance dañ koy xeex mu nekk délit mais aussi ñi ngi xaar projet de loi boo xamante ni dañuy tere fen parce que suñ demee ba am ay dignitaires yoo xamante ni lépp lu ñu wax du dëgg lépp lu ñuy comment commentaire bu ñuy def si ñoom dañ naan fen nañu wala fenuñu kon jaadu na jaadu na si dëkk bu mel ni Sénégal am ay références yoo xamante ni partout dans le monde dañ leen di tudd ñu am projet de loi yoo xamante ni day strict par rapport ak criminaliser góor jigéen yi mais aussi par rapport ak euh, wàllu fen mu nekk loo xamante ni ñiy def politique day dañ si ñoom parce que fen gi dafa bari di gërëm ngaari taal bu baax ak soxna yi nga àndal di leen wax ni yëf yi dina neex ba takkaajoo fa ñu jëm fi ñu jëm ñeme nañ ko xam nañ ko miin nañ ko yàlla dogal na su aji néewee tamit bokk nañ si ñi gën a ancien di def politique fii si commune Thiès Ouest fañ jëm miin nañ ko te la fay yóbbu nit xam nañ yoon bi te joxe gi incha allah pexe yi mi fi yàlla biy joxe wërsëg def na si ñun xol boo xamante ni lu ñu am dinañ ko bokk ak nit ñi mu néew ak mu bari te incha allah dinañ ko bokk di wax ñi nga xamante ni ñoom ndey Cheikh ñi leen fekk si. yaatal leen ba ñu yaatu yaatal leen ba ñu yaatu maanaam suñu ñëwee sax seeni kër génn leen bàyyi leen ak seeni lal ne politique surplus lañ ci bëgg ngaari taal mi ñu am ngaari du n'importe kii wax naa ko bër gi dem ngaari du n'importe kii dans l'histoire de leen ngaari dafa marqué ay empreinte am te incha allah noonu la ñu continuer ànd di gërëm ñëpp di sant ñëpp